noo ko déggandoo. nee na noo ko déggandoo. loolu leer na. nee na loolu leer na nañ. man nag sañuma wax nee na man nag sañuma wax sax. ndax xam sama bopp. sama bopp. nee daal ci ñaari anam rek. laa koy tënk. dëgg la alhamdulilah rabbil alamin yëg naa yëg gi nga xam ne yëg ngeen ma ko. nee na man day alhamdulilah rabbil alamin na yëg naa yëg goo xamante ni yëg naa ne yëg ngeen yëg ngeen ma ko. waaye nag alhamdulilah rabbil alamin waaye nag alhamdulilah rabbil alamin ab soññee rek la ci nee na ab soññee rek la ci man. yëg naa ni nee na yëg naa ni. lu ngeen ma gën a yëg. a yëg. ma gën a sama doyadi. a sama diggante ak sama borom. di gën a yëgit nee di gën a yëgit sama sopp Serigne Touba. ñaar yooyu laa jëlee ci. nee ñaar yooyu laa jële ci. seen yéene ak seen yitte ji. ak seen yitte ji ngeen jëlee ci man. waaye nag doonuma dara ci sama waaye nag man doonuma dara ci sama bopp. waaye daal foofu laa nekk. foofu laa de. dama leen koy seeral yéen ñëpp. dama leen koy seeral yéen ñëpp. ne di ko seeral it suñu borom. nee na baat bii nag mu mujj a wax. sëriñ Tuba kenn la. ne sëriñ Tuba kenn la wax naa ko te du yàq dara. ne wax naa ko te du yàq dara. waaye fa ko boroom jaarale ba ci moom. nee fa ko boroom jaarale ci moom. jaarale wu fa kenn. nee jaarale wu fa kenn. tax muy kenn. nee loolu tax muy gën a xam waaye ngeen gën a xam ni. lu ma gën a yëg rek. lu ma gën a yëg rek. ma gën a yëg sama ah. torte. ma gën a yëg. ak sama doyadi. sama diggante ak sama borom. sama diggante ak sama borom. di gën a yëgit. ne di gën a yëgit. bëgg ko bëgg Serigne Touba. bëgg gi ma bëgg ba keroog bis penc ba. loolu laay soññi sama bopp.